Ama buuse ñoo jël daalu buuse mi ngi nii barki alxuraan ay daalu ma ngi nii daalu buuse ngi maa ko jàpp maa ko jàpp maa ko dóor ba mu daw maa la ko Aba bul tiit bu ragal ma nga ne maa ko dóor ba jël ay daalam buuse maa dóor maa jël ay daalam kii doon la yabati kii eh moo ngi nii moo eh, ngi nii. moo eh, ngi nii. Eh. não não não balik tu. Dau balik tu. Sini kamera. Sini tu kalau. No, no. jubóowuñu. dañuy lekk ñu fay waaw mais lan loolu mooy lan eh! munut ñun ña dërëm. ñebe. Eh! ñoo ngi nii. dafa baax rek. ñun ñaanuñu la dañu yor suñu xaalis di jënd. ah eh, li jënduñu la waaye da nga yor suñu xaalis di jënd yow ko ñu defal eh meewal waay ngir yàlla non maa la ñaan loolu ngir yàlla meewal rek yaa ma def yow waay ngir yàlla eh dañoo yor suñu xaalis di lekk eh ñun yor suñu xaalis di